ñiy taxaw di wax ci sonkoo ñëpp xam nañ Sonko li ne ci moom dofuñu jënd teewu leen la leen poussé xaalis. Mhm. gis nga xaalis dafa mën a yàq fitoo mhm. te nit day sóor. Mhm. keroog wax naa la ko nit day sóor taraayu bàmmelam. gis nga lépp loo lekk te moomuloo ko. muy riba wala ay nit bokk ko. billaahi wal kitaab doo dee te gisoo ko. doo dee sa njaboot gisu ko gis nga fitoo ñu bari ñu ngi ñu ngi dem di wuti liggéey. liggéey bi dëgër lool si ñoom. nga déposé kayit. Mhm. kayit bi dëgër lool si yow. Mhm. Vito. Mhm. foo liggéey weer ñu dàq la. Vito xam nga lu waral lool. mooy lan. yàlla da lay sa borom kër. ngay ànd ak moom nga war ko jaamu. war ko tarbiwu. ngay tàngal xolam. ñaareel ba. ngay dundee riba di ci dundal sa doom ñuy màgg di am ñaari at ñetti at ñeenti at ba majeur ba war a liggéey. fu ñu dem liggéey ñu dàq leen lu ñu wuti mu dëgër barki sa billaahi wallaahi wa tallaahi loolu moo am ñu bari kenn liggéeyu leen cat jàpp leen kenn liggéeyul seen ndey moo ko liggéey liggéeyu ndey jala kese billaahi wallaahi tallaahi lii moo am Vito li ma mm. jot te li ma lay wax nii képp ku ma xoolal ba gis loolu wax la ko danga ma mm. naan sama jabar li may def ma ne ko sa jabar li mu lay def ni nga sa xol di tàngee ci sa jabar mm-hmm. noonu la ay xolam di tàngee ci jabaram am naa ci lu mat lu mat juróom fukki nit yoo xam ni. Mm-hmm. te carrément lii laa lay wax dama naan la gis nga li mu liggéey. Mm-hmm. ci doom yi mooy saabu bu yeewoo de gis lu ko naqar ci doom yi. Hmm. am koo xam ne moom daf ma ne sama doom yi ku ci dem liggéeyi ñu dàq la ku déposé bac doo am. Hmm. boroom këram sama nopp gémmiñam sama nopp. Vito nañu moytu di lekk riba. Mm-hmm. ak di nax nit ñi. surtout waa Europe ndeysaan mais naxe boobu sax dama ci bëgg dugg. laata bi nga daanalee ci buggaan xam naa loolu sax la ñuy euh, daanalee. mbirum seet. seetkat yaa ngi ne xuus ci biir réew mi. mbirum mara. mara yaa ngi ne xuus ci biir réew mi. surtout les maras de Sonko. les maras de Nangam. Sonko moom defe naa ne Sonko am na cent cinquante deux mille maras yu bokkut. bés bu ne ñu gis sëriñ bu bees ci réseaux sociaux yi réseau sociaux yi moom fu mu toll nii dafa mel ni dañu ko def euh, yoon wala lenn mais nit ñi nga xamante ne mhm. ñu ngi leen di nax mhm. walla nooy def ba xàmmee kan mooy naxkat ak kan mooy wax katu dëgg xam nga Vito mhm. gis nga nax du yàgg mission bu gàtt lay dox Vito est-ce que moo la naxee bu subaa di nga ñëwaat ndax mission moo gàtt mais sénégalais tamit dañoo naïf de doo ma déglu maa ngi ñëw danga ma laaj maa ngi ñëw mm-hmm. gis nga nax mm-hmm. mooy mission bu yàggul mm-hmm. gis nga sëriñ siy toog ci tele bi mën naa lii mën naa lee mën naa la defal lii mën naa la defal lay surtout jàngoro yi mun naa fa jàngoro waaw nga mun na surtout may ma Vito ma ñëw gis nga sëriñ si bañuma leen dama bëgg ngeen ñi ko mënul ñu dem bàyyi ji ñi mën te yàlla tax ñuy def te yàlla tax Vito. Mhm. dafa am benn xam nga lan moo tax may dal ci kaw sëriñ si. Mhm. lan moo tax may gën a dal ci kaw sëriñ si Vito dafa bari ñu ñu yàq. Mhm. dafa bari ñu ñu yàq. ñu ñu yàq maanaam yàq Vito. Vito docteur. ba mu demee jàngi lan moo tax mu jàngi. mën a faj. soo feebaree mu faj la. nest loolu moo tax nga jàngi. Vito ñoom dañoo jàngu xam-xam. am xam-xam. di ci def lu bon. Hmm. Vito. Mm-hmm. yàlla dafa def barki démb dafa am benn waa ju ma doon xoolal kooku daf ma daf ma touché. Mm-hmm. ak ak beneen ak beneen dafa bari. Mm-hmm. dafa am benn waa ju ma doon xoolal bi ma xoolalee waa ji ma ne ko yow de da ngay bëgg jóg liggéeyi mais doo de mun a dem liggéey. yow dafa am lu la lu la lu la gàllankoor bugguma ko wax dañ la liggéey. xam nga xale bu góor bi lu ma si tegal. déedéet. mu ne ma yaay. Mm. dama am camion garage camion. béréb sàngam fii ci Dakar. wax na ma turu place boobu. Mhm. dama fa am garage mécanicien. Mhm. wante pour ma xëy dem ci garage boobu munuma ko. salaamun xawlan billaahi wallaahi wa taala xale bu góor bi dina ma dégg. sama xol damaa jooy parce que Vito. Mhm. sëriñ si damay ñëw si yéen. ñëw ma pour contre leen. ñëw ma pour yàq leen. dama ñëw ngeen xool seen tra yu bàmmeel doomu jàmbur yi ngeen di yàq. docteur ba mu jàng jee métier dafa ñëw pour dimbali askanam. Mhm. yéen ba yàlla defee ngeen jàng xam li yàlla wax xam li ne ci alxuraan xam li yàlla santaane defu leen loolu nit day mburoo kolom ñëw pour yàq doomu jàmbur. Mhm. nga ànd ak moom parce que moom amul doole amul xam-xam. Mhm. wala xëy na am na doole bu mu la fay mais amul xam-xam bi. yow mi am xam-xam bi jëlal xaalisam te dara du la ci fekk dalay lew soo paree bul ko jox ko ay loo xam lu la neex. mais bul ko defal li nga xam lu bon li nga xam. Mhm. parce que mi ngi yàq sa frère mi ngi yàq sa doom mi ngi yàq sa jarbaat te fii bari na ñu ñu liggéey te nii la demee. Mhm. bari na ñu ñu liggéey nii la demee. Mhm. gis nga dama tourné woon benn vidéo ci kooku. Euh, fi Assane mu am benn xale bu góor bu ma woo Italie xale bu góor bi Pikine la dëkk. mu woo ma bi mu gisee ma tourné vidéo bi ci guddi gi la ma woo xaw ma ci ëllëg si. mu ne ma yaay ñun de dañ doon miraas suñu kër. Pikine mhm. mais mirage moo ci dugalee sama gémmiñ dañ ma jàpp ci sama tànk sama tànk bi day neew yi rek di metti hmm. ma dogu ci vidéo bi ne ko dinaa la faj te doo soxlawu ma sa dërëm bi gën a tuuti ma lay jox ay tegtal rek nga def ko billaahi wallaahi taalaa vidéo te li ma lay wax ni Assane mi may dégg dama mujj xale bu góor bi su ma waxanteeg moom audio yi may wax dama koy transféré Assane mu déglu ko mhm. ma ne ko dinaa la faj te laajuma la dërëm bi gën a tuuti mi ngi am jabaru tubaab bu ma déggee dina xam xam naa turam mais duma ko wax ci vidéo bi ma ne ko damaa bëgg nga wutal ma nàngam ak nàngam nag ma wutal leket ak kurus mu mhm. wut leket bi mu des kurus bi kurus bi lu mat weeru yàlla muy muy wut kurus ma ne ko yow xanaa doo jullit kurus weeru yàlla mënoo ko am bi mu amee kurus nag mu woo ma ne ma am naa kurus bi ma ne ko dangay dem tànk ndoxu géej ma jox la ay wérdu yooyu def ci ndoxu géej bi nga di ko sangoo gis nga bi mu commencé sangoo loolu mu commencé tane mu woo ma téléphone ne ma yaay man de maa ngi tane maa ngi commencé gis tan wante dafa am lu ma jaaxal mhm. ma ne ko ah, lan la mu ne ma dafa am damaa tëdd ba guddi sëñ Touba taxawee ni sama nijoor sëñ Babacar si taxawee tam sama càmmoñ ne ma dinga nga wér ñaareel ba nee mu toggaat ay guddi mu am lu ko feeñu ne ko bàyyil ki nga digaaleel séq liggéey tiital ko guddi audio bi dama ko yónnee Assane mu ne ko mu ne ko bàyyil ki nga séqandool liggéey mhm. mu woo ma wax ma loolu ma ne ko boo la wooxatee loolu ne ko bàyyiwu ma ko tey bàyyiwuma ko ëllëg xale bu góor boobu mhm. boobu laa ko gëj a dégg billaahi wala mi ngi may dégg nag su ma déggee dama koy ñaan yàlla su ma déggee na ma woo téléphone mi ngi may dégg xaw ma mi ngi may dégg wala mi ngi dund te yàlla na fekk mi ngi dund mhm. mais lii am na parce que damay bëgg man lépp lu may def lu leer la gis nga vidéo su ma nammee toog ci écran bii li may nax nit ñi ñu ma koy jox yàlla bu ma ko jëriñoo mm-hmm. Vito bi ñu tourné vidéo ak léegi mm-hmm. liñ ma may ci doomu xaalis ku ma li saxaara boo yeewoo yëkkati sa xaalis may ma mm-hmm. xaw ma nu mu toll seetal naa nit mu yónnee ma lu jar njëgu ñetti xar billaahi seetal naa nit ci junni may ma lu jege ñetti xar gis nga nit looy def nanga xool sa tra yu bàmmeel na xool bi su pénc te lépp looy lekk xanaa xamoo ribaa gis nga sëriñ ci lekk riba. Mhm. xanaa xamoo ku ñu ñaanal du nangu. Hmm. sëriñ si ah, booy loo ñaan gis nga lépp gis nga xoolal gis nga hmm. bu dul sëriñ. Hmm. gis nga boo dee lekk lu lewul. doo ñaan yàlla mukk mu nangu. soo dee lekk lu lewul. doo ñaan yàlla mukk mu nangu ci àddina. kooku man maa la ko wax.